Malick di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan Dak Médina di nuyu waa Médina yëpp di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér. Euh, di sàmm di ñaana aussi ñi feebar nekk si kër yeeg hôpital yàlla euh, yëkkati leen ñi nekk si prison yi aussi suñu borom jëlee leen fa ba indiwaat leen seen i mbokk ñun campagne électorale bi dañoo waxoon ne du ñu def ay posters yu mag mooy posters yi nga gis fii si dëkk bi rek. nga xam ne kayit la yuy yàq ñu ne ñun duñ def loolu li ñu leen a demee poster ñu ñu jël ko dugal ko ci banque yi jigéen am caution ñu mën leen amal ay financement loolu lañ def bañ ko defee it ñu amoon ay partenariat xeex bi dafa bari woon am ñu dem am nu ñu def ak ñoom ba ñooñu bloqué suñu mbir yi maam may ne amul problème nañ ko bloqué garawul mais bu campagne bi bu euh, vote yu jeexee nañ ko def day respecté kàddoom si loolu nag lañ jël changé ñooñu nga xam ne tey dañu war ñu changé leen indi ñu bees muy Biige mii Biige Sarr Biige Sarr doomu Macky Sall la ak Marème Faye xale la boo xam ne macha allah mooy représentant jeune APR fii si muy xale bu am jom am liggéey liggéey moomu tey toppatoo ba lépp ñëw moo tax tey ñu commencé fii financement yi 19 communes yëpp dañ leen financé incha allah ba nga xam ne lañ li Mambay waxoon dina ko respecté. beneen bi nag local bi lañ doon dem mais dépp yi dañuy ànd ak président Macky moo tax tey ñu war a def parrainage jox ko président Macky pour mu am li nga xam ne nii tey. si bi mooy ñu am député yu doy surtout nag ñu gagné Dakar am député yu doy gagné Dakar loolu moo ñu tax jóg léegi fàtte nañu local yi ñu ngi si programme législatif yi. waaw mais su la gisee waa Médina la nam il faut ñu dellu si li nga xam ne dafa xaw Médina élection yi ñu jóge nii gis ngeen taxawaay bi nga xam ne moom seen coalition moom ngeen am biir Médina mu nekk coalition boo xam ne taxawaay boo xam ne mucc naa yëpp mais seen rang bi. doy na waar jàngat ngeen def ci waaw loolu sax da nga ñëwoon dootuñu si wax. lii si initiative comme Mambay nee na nañ jéggal ñëpp si koor gi ñu ngi jéggal ñëpp ñu ñu jéggal ñi ñu war ñi nga xam ne dañ leen jox xaalis bu ñu bañ ñu campagnal ñi nga xam ne dañ tëdd seen kër yi nangu ñu jóg nangu ñu wax ak nit ñi. ñoo ñëpp tey jéggal nañ leen loolu moom moo dëgg yàlla du ma si waxati jéggal nañ leen comme que Mame Mbaye nee nañ leen jéggal jéggal nañ leen as gor moo jar a àndal booy àndal da ànd ak gor te booy ànd da ngay ànd ak ku suur c'est très important tey booy yónni nit seeraas wala daral wala foora ne ko jëndal ma nag wala xar day suur boo ko joxee lu suur la lay jëndal waaye bu dee suur loo ko joxee lu ràgg lay jëndal kon nak ñoo ñëpp jéggal nañ leen sant yalla wa lolu euh, dañ ci dañ kay rafetlu parce que. Bamba Fall moy ñun lañ leen doon wax si local yi rek kenn mënul nek maire doo ànd nguur waxon nañ leen ko képp ku mu nekk maire bo bëggee liggéey ci dëkk di nga ànd nguur par force waxon nañ ko té lolu mo fekk ci tay li Bamba doon wax ci nguur gi di leen xass ak yoy tay ñëw na. sax xam na ne mënul liggéey sans nguur tey boo bëggee Médina wala nga bëgg sa gox il faut nga ànd ak nguur gi sa programme nguur moo koy def te maire si état la bokk kon nag tey bu ànd ak Cheikh Ba ah gis naa leen de ñu ngi fóonante di raayante maa ngi ñaan yàlla mu continuer fóonante raayante bi maa ngi ñaan yàlla waaye Cheikh Ba c'est le coordonnateur Dakar mooy kilifa mooy kilifa euh, Bamba Fall tey si politique si Médina parce que moom lañu dénk lépp loo xam ne parrainage la lépp loo xam ne lu jëm si parti bi la. kon nag tey hmm, war na ko mën a woo mu ñëw ñoom ñu ànd liggéey comme que Bamba nee na tey président Macky Sall la àndal loolu moo rafet waaye nag na dëggu tey ñi ñu teg coordonnateur wala ñu teg délégué nañu ubbi seen téléphone yi wuyu militant yi wuyu moo moo loolu mooy yoon. waaye yow duñu leen fal doo leen wuyu téléphone disu leen nit ñi tey disu leen nit ñi wér bëgg gañe Dakar mënta nekk nit bu ñu la falee président dénk la benn liggéey da ngay ubbi sa kër ubbi sa téléphone ubbi sa bureau di wax ak Sénégalais yi di wax ak surtout waa Dakar loolu moo am solo. non ñun képp ku nekk 2035 foo munti ne si 19 communes yi yaa ngi ànd ak Benno ñun mosuñu jógee Benno Mame Mbaye mosu fa jóge Mame benn patron la am yàgg na leen ko wax muy Macky Sall Mame Mbaye benn patron la am muy Macky moo tax patron bi ñu am bi mu am dinañ daje parrain dinañ daje parrainage yëpp dem jox ko patron am Mame Mbaye amul patron ku dul Macky Sall amul njiit bu dul Macky Sall c'est moo tax ñun Macky lañu àndal. tey moom lañu àndal suba Mame Mbaye yàgg na leen ko wax ñi si des nag lu ñu la ti dénk te ngay fen doo wuyu téléphone ñun amuñoo yow affaire ñun ni ñu amal affaire mooy ñi Macky Sall jaral xeexal ko ñefeel ko ba mu am li mu bëgg si Dakar ak nombre de député ñun ñooñu ñooñu saf ñooñ la ñuy wër mais wëruñu ñi nga xam ne boo leen woowee téléphone duñu la faale ñu nit ñi tey waxoon nañ ko si local yi yow mi wax naa la ko mooy la Diouf saar mi ñuy jiital du gañe Dakar du gañe Yoff nga weddi ma tey ana ñu doon weddi ana ñu doon wax parce que xam nañ am politique yu Dakar yi ñun xam nañ am politique yu Dakar yi am na ñoo xam ne wax rek la def mënuñu gagné sax seen kër yi seen néew tey Mame Mbaye lu mu am huit cent huit huit mille et quelques de voix am ñaari conseil municipal Soham El Wardini du moo noon maire ñaar la am Pape Diop ñaar la am Mame yi am ñaar te ñun amuñu amuñu coalition amuñu dara mu metti mu metti trop ñu ñuy xeex fu nekk ñu ñuy xeex ñu am loolu am plus de 34 euh, conseils municipaux du ñu jàmbaar waxal ñun du ñu jàmbaar kon le problème kon ñun li ñu leen doon wax am na. man sama laaj mooy biir Medina. Hmm. Bamba bokk fi la woon pour ngeen bokk liggéey ngeen wuyu. non waaw ñun déggoo lu ma la wax xanaa. man duma ma wuyu ku ma yëgul du ma wuyu ku lu ma jël téléphone du wuyu koo xam bu ma la soxlaa du la gis man ñooñ duma leen wuyu ñoom buñ ma woy dama leen di tegal lu wóor te wér mooy wuyu leen askan bi wuyu leen ñi leen fal wax ak leen nit ñi jëflanteel leen nit ñi parce que dañoo soxla victoire Macky Sall moo soxla victoire de du ñoom ñoom ñëpp Macky Sall moo bëgg lu muy doxalee programme suba kon moom moom la ñuy war a liggéeyal pour mu am programme bu mu war a liggéey ëllëg parce que tey boo ñàkkee assemblée nationale mooy amatoo gouvernement te loolu musul am Sénégal kon tey waru am si Macky Sall képp ku ko bëgg da ko war a jàppale pour mu gagné ay élection lan ngay wax ah li may wax waa Medina daal mooy muy Cheikh Ba muy Bamba Fall muy Niassa des muy Khadinaar muy Seydou Guèye muy Doudou Diagne Diecko muy Madiagne muy ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay dëkk Medina. nañu ànd bokk ndey bokk baay te muy ànd bu wér muy ànd bu wér nag bokk ndey bokk baay gagné loolu mooy yoon nañu ànd bokk ndey bokk baay pour gagné loolu rek la.